jërë ngeen jëf Financial Times di yéene kay bu nekk ba Angleterre la fa président Macky Sall xëy waxa teere ji ne ci xët mu njëkk l'Observateur ubbil yéene bi coronavirus beeg li muy yàq ci àdduna bi la leen wax ne bu dakkul du jur jàmm ci koom-koomu réew mi wax na leen it li mu xalaat ci yàqu-yàqu yu faux médicament yi mën a jur ci Afrique bay sàkk moom président Macky Sall ci continent bi ñu jël seeni matuwaay ngir moytu lépp lu duy faux médicament waxi gi ñuy wax ci wax ci retaaru ñaari at yu ci naraam ndax coronavirus Sénégal mi ngi léegi ci téeméeri dese yu manqué fukk ak ñeent maanaam juróom-ñett fukki néew ak juróom-benn ndax démb am na yeneen ñaari dese yu yees yu waa ministère de la santé wax suur soit nañu fan yii di ñëw ko yóbbu séntu mu doon semaine bu yéeme ci réew mi ndax démb ñoo ngi ci juróom-ñett fukki cas coronavirus ak ñaar ñaar fukki cas garaaw ak benn di yoo xam ne seeni borom ña nga sowetaas ak yeneen ñaari dese yu yees coronavirus suuf la li fi bomb la ne mu di ca gàddaay di ca ngor bambiloor ak kawoon coowal suuf moo fi lëmbee laata bi nañu dansé mi ngi xeeñ ci réew mi ndax yi ñaxtu ki xultu yu dul jeex ay manifestation ca gàddaay ak ci kumpintum ñii ñu naan ay militaire invalide seen ñëgg-ñëggi xol di frustration dem na ba jéggi dayo tax ñu génnee ko journal bii di laata bi nañu ca gàddaay donte ay dënn jóg nañu fa ba nit ñi di manifester def ay grève de la faim terewul doo nit responsable politique APR ca Kër Massar dem na ci askanu gàddaay wax ak ñoom waxtaan ak ñoom ba wax ñu ci journal bi ne coow loolee léegi tey mu lijjantiku ndax maître Augustin Tine gise naa collectif gi li ñu leen di ñaan mooy ñu ànd akuk dal bàyyi lépp mu sedd giifal seeni dënn ndax président Macky jot na ci wax ji te léegi tey mu ko suur soo mel ne ku naan ko kon ca gaaw ne fii ñu toll indi bi fu nekk lay folote li ko dalee wa jàmm lasi ne kay nañu suuf policiers yi ñoo doon jàmmaarloo ak ñoom ba ci ñoom juróom-ñett jàpp fukk ca manifester ya ku tudd di ci réew mi xel dem ci yi fi woon 23 juin nañu tey ji ci la manifestation yooyu di am juróom-ñeenti waaye seetlu nañu ne ñi sosoon fësoon lool ci combat bi tey ji ñoo gas am kan ba mu xóot jël lépp suul ci nañu bari ci ñoom dem nañu làngale ji ci làngu nguur gi fàtte histoire boobee Mamadou Mbodj moo ci newoon di ñot ñoti ak la Sénégal ne guddi yi ñu toll M23 bu doon nit a ñu ne takkande rek la dese waaye la ci des yëpp dem na yoonam yoon di justice ca la dem seeti ka fa jóge démb di Cheikh Yérim Seck dina kay nañu ñool ñool yaa ngi gën a ci moom Cheikh Yérim tuumay avortement la koy toppe ba taxoon ñu woolu woon ko démb ca gendarmerie fukki waxtu yi lëmm def na ko fa ginnaaw bi ca la ko bàyyi moom Cheikh Yérim mu dellu ci suba waaye la yóbbu ca gendarmerie bu section recherche bu moom Cheikh Yérim Seck na mbir ya demee journal L'Observateur xëy na ci dem ba jeex ci passetam ci xët mu njëkku libération it moom Cheikh Yérim Seck moo ko ëmbal ba nuppi yónnee ko xaalis ne yàq ëmb bi yéene bi nañu waaye Cheikh Yérim Seck waat na wàcc ne ay sos la mësuta ëmbal ndaw si xaalis boobee mu ko yónnee woon da ko doon jàppale ngir mu mën a fay location docteur Yaya Sow mi ñu ne moo yàq ëmb bi libération nee nañu amul way wu rafet ci réew mi casier judiciaire bu taq répp la yore ñi yore journal Source A tey la ñuy yéemoote ci àdduna ubbil yéenekaay bi ca kokki ñeent fukki dërëm maanaam 200 francs moo tax seen nas ndaw màtt wu jëm ba dagg tuñam yóbbu savon